muy gàmm gu njëkk ga ñu ngi fàttaliku ki nga xam ne moo gën a màgg ci mbooleem lu yàlla bind ñu ngi fàttaliku ki nga xam ne gën a sell mbooleem lu ngi fàttaliku ki nga xam ne moom la yàlla def muy yermande di jëm ci mbooleem lu yàlla bind ñu ngi ki nga xam ne moo xett li doomu aadama ci muy jaamu leneen lu dul yàlla ndofab jaamu lu dul sa borom ki ci xettali mbindeef yi moo di yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñu goreel ba war a suñoo nekk jaamu kenn lu mooy yàlla mi nga xam ne moo ñu sakk loolu mooy ngoreel dëgg-dëgg moo goreel xel yi goreel roxo yi dañ dootuñ geesu leneen lu dul yàlla dootuñ jaamu leneen lu dul yàlla ki indi teraanga ji ci àddina mooy ki indi jàmm ci àddina moo ñu xoo ñu jëm ci gëm yàlla gëm yàlla ki nga xam ne moom kenn rekk la amut bokkaare du ci jëmmam du ci nelawam du ci jëfam moo fi nekkoon ba fi dara nekkut moo fi des bu fi lépp jógee lépp lu am lu moom mooy ki ko xamal te lépp lu mu xamal dana ko ñàkkal des moom kenn kooku rek moo di buur bi nga xam ne moom rek moo xeyoo di ko jaamu kooku it mooy buur bi nga xam ne moom rek a xam teraanga mooy bi nga xam ne itam lépp lu mu am ci teraanga may na ko yonentam bi sallallahu alayhi wa jim may yonent bi nag képp ku gëm yàlla gëm yonent bi yow it donn nga teraanga jooju moo tax ñett rek am teraanga yàlla rek am teraanga ak ab yonentam ak ñi gëm yàlla ku dut loolu ku gëm yàlla teraanga jooy konte muy teraanga it toroxtaane la ci bëtëb ñi nga xam ne am nañ gis-gis yàlla moomu ku ko xam gëm ko dëgg-dëgg da nga tedd ci moom teraanga yoo xam ne dootu ànd ak toroxte mukk da nga màgg itam màgg goo xam ne kenn du la mën a suufeel teraanga dëgg-dëgg mooy teraanga ji ñu jële ci gëm yàlla ak topp yàlla niroowut ak beneen teraanga moom lañuy ñuy wax xesu taati teraanga ji jóge ci topp yàlla kooku yonent yàlla yi la ko yàlla may gannaaw bu yonent yi wee ñu gëm yàlla ñoo ko donn ku nekk nag ak fa tem maqaama gëm yàlla goreel nañu moom yonent sallallahu alayhi wa sallam bañ xam ne waruñoo ragal ku dul yàlla waruñoo yaakaar ku dul yàlla waruñoo toroxlu ku dul yàlla yàlla rek moom moom loolu ci doomu aadama mboolem bindee fi ci def yépp ay jaam lañ ay nawle lañ ci ron yàlla ak yàlla jooju nga xam ne moom rek mooy suñu yàlla muhammad mooy njël benn ak jaam yi moom mi nga xam ne moo gën ñépp te moo tax ñu sàkk lépp mooy ci ramu ëllëg ñépp bés ba nga xamee ne dem nañ ca adama mu ne sama kan daju ramu tay ñu dem ca nuux mu ne sama kan daju ko ñu dem ca ibrahim mu ne sama kan daju ramu ñu dem ca musa mu ne sama kan daju ramu ñu dem ca isa mu ne sama kan daju ramu dem len ci muhammad ñu ñew mu ne man may ci xeloo ramu tay taxaw ramu len ñom yonent bañ xel bañ mëna taxaw di ramu yonent la jëk ramu bañ mëna mu ramu wali bañ mëna ramu Mu ramu nak. da mujj di jëlee ci safara di yóbbu ci aljana di rammu di rammu ba nga xam ne na ne léegi daal yàlla dara desut ci safara lu mooy ña nga xam ne mooy ñu weddi woon yàlla mooy képp ku bañoon a wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah waane baat boobu képp ku ko wax te xam ne gëm nga lim lamboo ne waruloo jaamu kenn lu may sa borom kooku moom dara du fayam lu may aljanna yonentu war na ci jëleem togg maas ibnu jabal bañ demee ba ci yoon mu ne ko yow maas mu ne hoyu naa la yow yonent yàlla mu ne yow maas doomu jabal mu ne hoyu naa la yow yonent yàlla mu ne yow mu ne hoyu naa la yow yàlla mu ne ko ndax xam nga luy xaq yàlla ci mbooleem jaamam yépp képp kum bind mu ne déedéet yàlla ak yonentam a xam mu ne ko xaq yàlla ci képp kum bind mooy nga seede ne waruñoo jaamu kenn mooy moom ndax xam nga luy xaq yi jaam ci boromam su fekkee nangu na loolu mu ne yàlla ak yonentam a xam mu ne xaq jaam bu nangoo ne war da jaamu kenn lu mooy yàlla xaqam mooy yàlla dugal ko aljanna nufal ko ci safara képp ku yàlla bind te fekk bëgg na la doo dee mukk te waxuloo ne laa ilaha illallah muhammad rasulullahi gëm ko képp ku yàlla bind ba nga dee waxuloo baat boobu gëmuloo ko yàlla la bind waaye bëggut la yàlla bind mbindeef yépp ci kaw mbëggee la leen bindee waaye it ba mu leen bindee sàkk na ci ay xaritam ak i noonam noonam mooy ña nga xam ne wedd nañu baat boobu yàlla na ne xadduwun lil kaafirina la moom mi bind ñëpp bëgg na ñëpp ci mbëggee leen xam gi waaye nag ñi weddi baat boobu na ne moom yàlla noonu na leen ku yàlla noonu nag dara du payam lu may ëllëg safar lay dëkk Muusa wax na ko ne yow sama borom man day yéemu naa sa xam-xam bi sa xereñ ji sa yërmande ji nga bind lu te ni doomu aadama gannaaw bu nga di ko lakk ci safaraat man day xaw ma loolu na mën a amee yàlla ne ko demal bay fekk Moussa am ndaya doon métier mu dem bay toolam ba tool ba ñoree mu góob ko bojj ko fab pepp ma yëpp dugal ci magasinam fab xatax ba ak ak gattax ga yëpp mu rata ko ne ko duru jafal yàlla ne Moussa déet bay sa tool ba noppi di ko lakk mu ne tool bi li jaamoon njariñ yëpp fat lii ab xatax rek la ak gattax mu ne ko sa tontal laa jàngoo ñi nga xam ne gëm nañ yàlla ñëpp yóbbu naa leen ci aljanna ñi nga xam ne bañoon nañoo gëm yàlla nag xatax ak gattax rek lañ moo tax ma di leen lakk ci safara ku yàlla bind te bëgg la dafa lay xiir ci nga wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah kum bind ba noppi xaaye boobu baat bind la ba noppi wacc la laa saytaane bi nga xam ne safara la nekkal moo képp ku ko topp yonent na ne yéen ñëpp da ngeen dem aljana lu may ku bañ ñu ne ana ku bañ aljana yow yonent bi mu ne ku bañ wax laa ilaha illallah muhammadu rasulillah kooku mooy ki bañ aljana yonent ni ñu indil teraanga jurey jooju ñuy jaamu borom bu mag bi nga xam ne borom bu dul moom amut moo mën a yëkkati moo mën a suufeel moo mën a teral moo mën a toroxal moo mën a joxe moo mën a xañee yonent mi ñu goreel ba ñu ne amuñ benn borom lu may borom boobu moom yonent bi nga xam ne moo gën way jëkk ak way mujj mooy ramb way jëkk ak way mujj ëllëg yonent yëpp Ibrahima ci ëpp maqaama Muhammad a ko gën Muusaa ci ëpp maqaama Muhammad a ko gën Isaa ci topp Muhammad a ko gën Muhammad moomu ñun ñun suñu élimaan ñuy topp ci moom di julli nam doon julle di jàng téere bi wàccoon ci moom nam ko doon jànge di xoor nam doon xoore di tudde yàlla nam doon tudde yàlla di bañ lépp lum bañoon di nangu lépp lum nangoon ñun yàlla jànge teraanga yooyu sant yàlla yow jullit ma ne yàlla jànge na la sa diine gën mboolem diine yi ndem beneen diine am na diine amoon na lu jiitu lislaam na am waaye ba lislaam sam koo ba tey beneen diine newu fi ku diine wu lislaam nekkuloo ci dara alquran wax ne diine fa yàlla moo di lan moo di lislaam nekku bëgg a jaamoo yàlla leneen lu dul lislaam yàlla du ko nangu te ëllëg da ngay perte ñun yàlla jagle lislaam boobu ma ne suñ diina mooy diine bi gën ci diine yi te moo diine bi fonni mboolem diine yi ma ne suñ diine boobu moo am téere bi nga xam ne moo gën ci mbooleem téere yi yàlla wasal yàlla wàcce na téeméeri téere ak ñenenti téere wàcce na juróom fukki téere ci siisa caatam aadama wàcce na ñett fukki téere ci axloox mooy idris yonent yàlla idris wàcce na fukki téere ci yonent yàlla ibrahim wàcce na fukki téere ci yonent yàlla muusa lu jëkk tawreet ba noppi wàcce tawreet ak linjiil ak zabor ak alquran muy téeméeri téere ak ñenanti téere téere yooyu de yépp alquran a ci gën alquran jooju yàlla jagle ñu ko ñu nekk xeet yi nga xam ne ñoo gën ci mbooleem xeet yi alquran a wax ne kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi nekk ngeen di xeet woo xam ne xeet wu yàlla mas a génnee yéen a ca gën lu tax da ngeen a gëm yàlla tey digle lu baax di tere lu bon ngëneel gi foofu rek lañ koy jële duut ci deret duut ci xaskan duut ci barab képp koo xam ne gëm nga yàlla gëm nga yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi diinewoo diine lislaam ci ngëneel loolu képp ku diinewoo lislaam gëmuloo yàlla ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokkuloo ci ngëneel loolu boo bokkoon sax ci bani haasim aboo lahab ak abdoulaye bàyyi yonent ñoo bokk rek bàyyi waaye aboo lahab bokku ci Abu Taalib mooy bàyyi yonent bi ko gën a bëgg gën a am ci moom njariñ wande bokku ci gannaaw boo xamee ne Salmaan Farisi ak Suhaybu Rumi ak Bilaal al Habasi ñu ca njalaxtan la nga xam ne diine lislaam moom dàq na ay cosaan dàq na ay deret dàq na ay askan ñaari nit rek ñoo am ku gëm yàlla gëm yonent bi koo koy nit ku tedd mooy ku foor yàlla ku weddi yàlla weddi yonent bi koo koy nit ku torox mooy nit ku suufee moo fasoo texee di ëllëg ci àllaaxira maa ngi xeesalaat sama woote ci mbooleem ku dugg ci diina jooju ñëw leen dugg ci balaa ngeen rëccu te fekk rëccu du jariñ maa ngi xeesalaat sama woote ci ñi nekk ci diina ji ne nañ góorgóorlu doole jàpp diina ji jëfe diina ji lislaam moo xawee lu dul lislaam jullit moo gën a foor lu dul jullit jullit moo war a moo war a tegu ci kaw lu dul jullit lu dul jullit moo war ragal jullit jullit war nga ragal lu dul yàlla suñu jàppee diine ji gëm ko ni nga xam ne noonu la ware leneen moo ñuy ragal waaye ñun duñu ragal leneen ñun ñooy tëkku leneen waaye leneen xelam du nekk ci tëkkuñu yàlla moom teraanga ak kan ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ak kan ñi gëm yàlla kon nag ku torox rek da ngaa gëmu diine ji na mu waree waaye daal képp ku gëm diine ji yaa ngi ci taranga yàlla wax na itam ne su fekkee gëm ngeen yàlla te def ngeen lu baax te def lu baax mooy jëfe sariyaatu bi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy def lu baax ne na su ngeen gëmee yàlla tey def lu baax yàlla dana leen samp yéen jullit ñi ci suuf ngeen xatte suuf si naka ñeneen jëkkoon xatteewoon ko Omar ibn Xataab ak ña ko topp diina lislaam rek lañ jàppoon waaye ñoo tegoon ci kaw àddina yépp ba julli ñu bàyyeewoo yoon lañ def gannaaw ba léegi suñ bëggee demati ca kanam jël seen place bi nga xam ne mooy seen place ci àddina si te mooy tegu ci kaw ñëpp di àtte ñëpp xelif ñëpp nañ jàpp ci téere bi yàlla dëggal leen lim leen dëggal yàlla du nar ñun ñoo tarde suñ yàkkamtee li ñu yàlla dig nañ dem ci li ñu yàlla wax nañ gëm yàlla nañ jëfe jëf ji yiw mooy toppali sariyaatu santaane bay li nga xam ne sariyaatu tere na ko yàlla dana wax ci alquran ne du may ku julit mukk muy xam yoon ci julit du may ku gëmut yàlla muy xam yoon ci ku gëm yàlla kon nag képp koo xam ne ku du julit xam na yoon ci jëm ci yow rek tuumaal sa bopp yàlla narul yow yaa defee gëm rek waaye gëm nag dafa am ay daraja daraja ah yàlla wax na ne yaa ayyuhal lazina amanu aminu yéen ñi gëm gëm leen kon gëm na am na deneen gëm na ngeen gëm baax gi ci gëm gi nga xam ne moo leen di may ngeen tegu ci lépp moo leen di may ngeen àtte lépp moo leen di may kenn du am yoon jëm ci yéen xanaa yéen yéen am yoon jëm ci kenn moo leen di may ku nekk ragal leen te du ngeen ragal kenn lu tumuranke la lu reelu la jullit ñi nekk ci jamono jile di ragal leneen lu dul jullit yàlla wax na yonent bi ci alxuraan te yonent nettali na ko ci hadis ne ko dana sànni ay ragal ci xoli ña la weddi ba ñu gëmut yàlla yàlla ngi sànni ay ragal ci seen xol kuñ toll ñu ngi ragal ñu gëm yàlla yonent wax ci hadis ne nusirtu bi robo ma masirata sahra yàlla dimbalee na ma fanni ragal ci xol noon yi lu mat doxab weer loolu nga xam ne yonent jàngatoon na ko ca jamonoom yóbbu alewu ko kat ci la ko bàyyi mi nga ànd ak lislaam ba léegi képp ku gëm diine lislaam jàpp ci na ca war a jàppee ma ne lu ku gëmut yàlla daf lay ragal roobu boobu mu ngi fi nekk ba tey te ragal yooyu moo xaat jullit ñi ci àddina si benn noon yi ak seeni dooleeg seeni pexeeg seeni jumtuwaay yi xalag ak seen jumtuwaay yi boom ak seen xalal ju bari ju di jeex ak di du ñeeg seen doodeeg seen ñàkk xam-xam ak seen fasantikoo seen ñàkk pexe lépp terewut ñi di julit ñi ngi ragal julit ñi suñ toll te julit ñi ñu ragal ñi di julit julit du ragal dara lu du boromam ku du julit nag xaw yàlla dana ko ragal loolu di moom ku ragal yàlla dootoo ragal lenn lu dul yàlla waaye ku ragalul yàlla itam da ragal lépp lu dul yàlla boo xamee ne sa borom bi nga war a ragal ñeme nga ko Namrod ibnu Kanaan moo fi ëppoon doole moom àddina yépp day amul frontière ba mu ñemee boromam yow tuuti da ko yàlla xiir yoo ko xalaat ragal yoo ba mu bañee ragal boromam ragal yoo moo tax mu far xalaku ndax yooye dañu dëkk ci napp ya rek di boo guddee bëccëg mu wut fu mu toll rek ñu ngi dóor ñu koy dóor rek ndax yooyu dal ba ko loolu sàppee mu ne sama bopp bi daal lañ ko dagg ma taxali ko yooyu benn yoon lañ ma tëggal bopp wurus ñu tëggal ko bopp wurus dama rafet ak moom ne ko bii baax na mu ne waaw ñu dagg bopp ba dof la fa xamul ne bu bopp bi daggee dootu mën a dund ragal yoo ko génnee àddina teewal mu ragal boromam te bañ a ragal yoo nañ ragal suñu borom lim ñu sant yomb na lool nañ def lim ñu digal bàyyi lim ñu tere lim ñu digal mooy góorgóorlu di julli julli juróom xoor weeru koor ku am xalal génne ci asaka ku amul daal waxul la boobu wax ku mën a dem Makka yi dem Makka yi benn yoon ku ko mënut santuñ la loolu li yomb na torop li ci def ah, daganal na xaraamal na lépp luñ la tere ma nga def ca wetam loo xam ne dagan na mën ngaa doyloo lan leew da bañ a dem ci li xaraam kii kay muccoog moom yomb na julli juróom soo boolee julli juróom yépp mën nga koo julli ci genn wàllu waxtu ndax julli bu ci ne mën nga koo julli ci juróomi minute te juróomi julli rek lañ kon julli juróom yépp mu ngi mel ni ñaar fukki minute ak juróom rek la la julliloo ci bés bi matul sax genn wàllu waxtu nga xamne mo moo bind fukki saar ñaar ci bëccëg fukki saar ñaar ci guddi muy ñaar fukki saar ak ñenant bu ko neexoon mu ne la jaamu ma saa yooyu yëpp wala ma yóbbu la safara waaye may na la saa yooyu yëpp nga di ko defe ci say soxla di ko toppe say baneex mu laaj la ci rek lu tut genn wàlli waxtu ne la loolu moom julil ma ko soo bañee loolu boo dajeeg moom xëlëk te la budda da nga dajeeg moom doo am benn lay mu bindal la ci weer ak ñaar yépp ci say soxla benn weer rek at mi mu ne woor ko soo bañee loolu xoor ji itam waxul ne sax wooral weer bi yëpp xamul ne neew heure koor du weer wi yëpp lañu woor genn wàll gi rek lañu woor bëccëg bi rek lañuy woor li ko dala fi fajar xare ba fi jant sooyee ba jant sooyee ba ba fajar bi xar kenn wóoru nga xam ne bon fukki weer ak ñaar yim ñu bindal may ñu ko ñu di ci dox ñuy soxla te moom moom jant bee weer wi asamaan ak suuf moo la moom yow ci sa bopp moo la sàkk moo lay dundal bu ko neexal mu woor loola jamono lépp boo bañee mu yóbbu la safara xool loolu la lu may genn wàll ak weer ci fukki weer ak ñaar ma ne soo bañee loolu boo dajeeg moom ëllëg te da nga dajeeg moom benn lay doo ko am mu teg ca asaka asaka du dara lu may ku am alal ju bari nga dindi ci xaaj bu tuuti jox sa mbokk ya nga xam ne yàlla daf leen a xañ xamul dara nga bu la ko yàlla santu sax nga def ko ngir sa yërmande nga def ko yi ngir sa jàmm ndax ñaan xalal ji suñ doyloo suñ tëyewoon xalal ji xañ way ñàkk seen xàq bu yàggee kat dafay jub tawra mooy ñet daanu ci seen kaw rek ñoom it balaa ñoo dee li wolof di wax balaa maa wax ak malaaka wax ak nit ñu taxu ko asaka ngeen gis euh, góom yu bari xam diggante nit ñi waaye asaka tegg na loolu ba nga xamee ne waral na yow miskin mi kat amuloo dara waaye yàlla jox na la xaq ci xalal yi ki nga xam ne am na su la ko su la ko kooko joxut sax toqal sa rek ci loolu xam nga ne sa borom euh, euh, sërëlal na la xaq joo xam ne yow yaa ko moom xaj néeg ba itam ku ko man xoolam bi néeg yëpp ñu aji néegam ba ca makka ndax foofa fa la mboolem julliti àddina yëpp mboolem ñu gëm yàlla ci àddina fa la ñuy daje di jaamu benn borom rek di topp benn élimaan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa ñoom ñëpp seen col lenn lay doon seen wax benn lay doon kuy arab ak ku dul arab ñëpp arab la ñuy wax foofa labbayka allahumma labbayk laa sharika laka labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk laa sharika laka ku dégg ku déggul arab ñëpp arab la ñuy làkk foofa ngi bennoo ga ñu taxaw ci benn pakk boo xam ne balaa ñu faa jóg yàlla ne leen dem leen yéen ñëpp baal naa leen seen mboolee mi bakkaat te waralal naa leen xal jànn di fukkareeg malaaka yi nag naa leen seen leen sama jàmm te leen ku nekk fa mu ko ak soxla yam bay ñew rek nit sama jëm ci fi ci xàll bi ci arafat dengo di tuddi dima di ma màggal seede leen yéen malaaka yi ne ñom ñep goreel na leen ci safara kon aj ñi ñang koy aji aji ñu ko ngir yàlla seeni njariñ lañ fay jëli yalla na dem leen haji ngeen da ngeen ci seen borom da ngeen gisit ay njariñ yoo xamne yeen yeen koy jariñoo lii mooy li ñu lislaam sant yeneen yi ñu aaye yépp nag lu ci nekk luy far bakkan la moo tax yàlla aaye ñu ko yàlla aaye na naan sangara a naan sangara lu tax yàlla aaye ñu ko ku naan sàngara ba man di dafay tàggoo kam xelam mën naa rey boppam mën naa rey keneen te du ko yëg ba nag naan sangara rey ba kanam ca xaraamal na njaaloo lu tax doomu adama yàlla daf ko bind ci fiir su fekkoon ni ñun bërgële jut ñu ñuy xëccoo Euh, jigéen ñi ci jatt ji noonu la ko maye doomu aadama doomu aadama ñoom dañoo bëri pexe te bari gànnaay kon ñoom dañu rayante ci jigéen ñi ci kaw piir moo tax yàlla xaraamal góor gu nekk jigéen ji doxut jabaram ngir léegi tey mu ñàkk ca bakkanam wala mu xañ keneen bakkanam yàlla xaaye na lekk yàpp mbaam tugal yàpp mbaam tugal dana sos ci yaram jàngara yoo xam ne du bàyyi borom mukk te yóbbu ko àlaxira tax na ba xaaye gi ñu xaaye lekk yàpp mbaam xaaye dee rek la yàlla xaaye na rey bakkan ndax soo xamee ne rey nga bakkan ah, boo reyee nit ay mbokkam yépp taxaw ci fexe laa rey say mbokk taxaw ci bëgg a fay ah, boobante ga di ba fu kenn xamut loolu moo tax yàlla xaaye rey nit lépp lu yàlla xaaye moom loram nekku ca lor yi kim ko xaaye moo ci nekk moom maslaam nekkut ca maslaam kim ko xaaye mo ca nek borom bi nga xam nak ne mo yereme nonu mo xame nonu xam-xam bu ya bobu li nga xam ne mom la tëral jógewu ci xelam kenn xana joge ci ki ndim ne fi nga xam ne moy ci xam-xamam sos mboolem mbindeef fi de asaman ak suuf ak li nga xam ne moy daw ci ko suuf yeb ci xam xam xereñam la joge koku kay lim teural mo gën lepp lu xel teural wooy jullit ñi nag tey ba nga xamee ne dellu nañ gannaaw bee loolu yàlla tëraloon ñu wàññeeku ay góor yu xamul dara wala lañ xam lu gàtt la di leen tëraloon lu muutu lu yàlla tëraloon ñu di ko nangu wooy jullit ñi ba nga xamee ne ñu du jullit tar ñoo leen di tëralal loo xam ne fay safaanoonteeg seen diina ñi di ko nangu di leen yoonalal loo xam ne dafay fennoo alquran di fennoo yonent bi ñu di ko nangu way toftare ñooñu julit ñooñu julit day tax ñu yàlla di wax naa walan yajal allahu lil kafirina ala al muminina sabila allahumma salli ala sayidina muhammadin fatimi lima fatimi lima الحق بالحق ولا صراطك المستقيم ولا وآله حق قدره دار العظيم سبحان ربك رب العزة